sinon seen machine bi de mooy fóot guys fa am benn benn loo bu may ñëw place yi tey rek ngeen di reewe job bi suma wasin machine bi mooy fóot guys honestly damaa fàtte tëj ko ci sànni mooy kër rëy noonu waaye léegi mu pare guys fa am loo bu ma leen di ñëw place ok am na yéen ñu gis interview bi ñu ci TikTok bon xam na yéen xam ne gisagu leen ko pare leen fa xam benn jigéenu sénégalais boo xam ne <laughs> fañ ko doon interview si si si valentine bi muy wax loo bum loo you know jëkkëram ak nu mu mitee jëkkëram oh my god jigéen boo dee moo raw ami jow si gëm loo ndaw jigéen bu possédé possédé but I don't even know dinaa wax suma opinion after but damay ñëw play ko rek ok guys waaw waaye suma wasin machine mooy fóot léegi tey mu pare jigéeni sénégalais boobu ñu interview si valentine bi te mu sol lu xonk xarama ñoo def na bi te mu ne jëkkëram ko ñëwoon seen kër di sàcc ba pare jëkkër ji ñëw di sàcc ba pare mu gis ko nopp ko <laughs> <laughs> Oh, <laughs> oh my god like kaale ma lakk jigéen ji rek like kuy wut love nag ba tasee ñii da nga pare ana jigéen ji sax oh no newut fii nii ok xaaral ma seet téléphone bi la nekk oh no xam ngeen jigéen ji may wax nii am na yéen ñu bari ñu ko gis waaw fii la nekk ok so I have to see how to put the picture here so xaaral ma soo gars yi jigéen bii nii <laughs> lu ngeen xam si jigéen bi nu mu mitee jëkkëram oh my god guys kuy jaay nobel ba taseeg jigéen bi suma wasin machine bi muy fóot guys waaye léegi tey mu pare lu ngeen xam si jigéen bi nu mitee mitee jëkkëram maa ngi ñëw pileen leen ko ngeen dégg soo jëkkëram dafa ñëwoon seen kër di sàcc ba pare mu taseeg moom amee ñu dàqee ko mu daw la ngaamu jabar ji far jabar ji sentir love <laughs> far di lijjanti sàcc bi ba gis ko ba gaa yi xamante ba sëy laa illa ñi de seen love story moo dàq si love story yëpp dégguma yëpp nag yi nit ñi doon def si si um, valentine yëpp bot foog naa bi si daam allo and so guys programme mënoon def si bëccëg mbiri loo boobu laa bëgg ñu waxee ko keneen fànn boo dafa am benn jigéen gis ak jëkkëram xam ngeen jigéen ñi nu mu tee jëkkëram guys so guys xaaral ma ñëw leen audio yi ngeen dégg jigéen bi nu mu tee jëkkëram yëpp ngeen xam ne jigéen bi ak jëkkëram pure love la ok jigéen daf dee sànku si góor xam na góor yi dee sànku si jigéen de waaye jigéen daf dee sànku si góor I'm telling you this jigéen bi hmm? seen love story bii ñaata góor ñooy nangu lool ñaata góor tey ñoo doon ñoo doon nangu jigéen bi ñëw sa kër di sàcc ay mobile la ka sàcc ay bagaas nga loof ko jigéen baa ngi nii maa si ami jóob ci xew mi doon sàcc sàcc sama télé papa sama ay u nijaay sàcc kër gi yëpp mais koroot biñ ko jàppee ci kër gi téye ko ba di ko dóor bi mu dawee ba laxasuma noonu jàpp boobu mu ma jàpp ci laa lu jóge ci moom ñëw ci man benn amur bu garaaw sentir loo xamante ni suma ko sentir ba ma juddoo ba tey loolu moo waral sama mbëggeel an moom te ma boobu noonu loolu ma doon yëg du man bu nekkoon man rek bu boobaa du ma ko bëgg mais xëy na peut-être yàlla moom mu ko bëgg loo wala mbëggeel ëpp ma doole ma bëgg ko. wax na dëgg kay boo dafa one rek pare yéen ci internet bi di saaga ndey everyday di defante mel ni ko dof Sénégal ndeke kii mooy taxaw seen télé yi di xoo seen doom yi pour ñu join ko seen doom yi di leen xool ngeen di ko xool su ko defee ñu foog ne lii du dara su ko defee ñu jóg join kii yéen Sénégal wér ngeen yéen Sénégal lii lan la yéen ndeke seen ennemi bopp ngeen yéen Macky sàll bañ na leen waaye yéen a bañ seen bopp ndax lii man ngeen koo xeex yéen ñëpp su ngeen jógoon kilifaay réew ma yëpp jóg condemn lii condemn lii waaye ñii da ngi bàyyi kii muy wax su ko defee gune yëpp jóg foog ne di siis normal su ko defee seen doom yëpp jóg seen sët yëpp ëllëg jóg seen jarbaat yëpp jóg ak yeneen doomi jàmbur yi nga xam ne sax su duur sa doom sax suñ jógee sa doom du mucc sa doom yi la ñuy jam si yéen wér ngeen yéen li fay dee ci bés ñu di leen jam ci ngelaw di leen agressé ci ngelaw ci bés ngeen di seetaan kii di taxaw seen télé di ne lii mooy suma liggéey man maay ñi maay ñi leen di jam bët bu set man maay ñi leen di agressé bët bu set te maa tey te maa xam suma ay groupe te seen doom yi lay xoo pour ñu ñëw join ma kii taxaw di leen wax lii ci seen télé Sénégal ngeen di ko seetaan baña yéen Sénégal yéen yéen ndekete yéen yéenay seen ennemi bopp ndekete li tax Macky sàll yab leen bugg leen seen bopp yéenay seetaan Macky sàll yéen yéenay seen noon yéen kan ngeen di xaar mu dimbale leen léegi Sénégal moom laa leen di laaj Macky sàll mi leen di seetaan bi ko du ngeen koy wax dëgg seen kilifa yi war a jóg wax dëgg yépp a ngi seetaan ndig xaalis bu ndaw buñ leen di dukku ak njàkkaloof seen askan ndig yow yow nag lu moom la jël lu moom lan bagaas yi ni ñi mu sàcc. mi ngi dee mi ngi dee ci ban moment ngay sàcc yow fi mu toll ci ban moment ngay sàcc. léegi loo bëgg moo xam ne moment may sàcc kan moo yor sa métier di wax sa métier ni ñu koy defee pour lan la secret la métier moo gis secret la soo ko bëggee da ngay ñëw ñu defal la formation parce que jot na. gis nga man ah, baax na kay. attends xam nga tamit dafa am benn affaire bu am tey jii yow boo deful formation mënoo ko xam dèjà ñun instant bi kaasoon nañ ba gars yi ubbil nañu benn école de formation. école de formation boobu ñu ngi ciy former ay jeunes actuellement. pour ñu saaj waaw pour ñu jàppale leen ci métier mi parce que bëgg nañ ko bëgg nañ ko képp ku bëgg ñëwal nga formé aussi soo ñëwee ñu formé la jàngal la jàppale la taxawu la yaa ngi parce que gars yaa ngi fi foo dem am nañ fa ay représentant jërëjëf euh, ñu tur xamante ak maam yi nag ba wax nga ma ko. laa ilaha illallah muhammad rasulullah man ba tey rek may gént lii ne lii duwut moom laay déglu bu ko wéy dëgg def may gént kon yéen Sénégal gis ngeen kii di dem ci télé ñu di ko interview mu naan mu naan moom fay sàcc ak moom fa am ay groupe guneem guneem yi muy tireen pour du nekk sàcc ngeen di ko seetaan ba pare ngeen ne ci internet bi saaga ndey di wax waxi caga di déglu vidéo caga ak vidéo tey seetaan lii taxam lu ngeen wax yéen Sénégal bët bu set seen mbokk yi dee ñu di leen jàmpaaka di leen agressé di leen sàcc ngeen di ko seetaan di seetaan kii di leen wax ne moom loolu mooy liggéeyam kii mooy rey seen mbokk yi bët bu set kii mooy ñëw rey leen ëllëg te group gi nga xam ne groupe googu lay train mooy ñëw rey leen yéen ñun ak suñ doom yi group gii mooy ñëw pour rey ñu ñun ñëpp tout kenn seefut ngeen di ko seetaan te sàcc bu xeewoo senegal nag fanaani Gàmbi just pour ngeen xam loolu Gàmbi nga feet del ak sàcc sénégalais Sénégal yéen mën a seetaan lu bon Sénégal yéen xam naa naafeq ak jikkoy ku dund métit Sénégal yéen li ngeen di arrêté nit seen sookool fen démocratie boobu li ngeen di arrêté nit ci lu ñàkk fayda yépp seex mii wax leen ne leen bu nit demee jumaa na ngeen ko jox kondom ndax kuy njaaloo use kondom bi ndax nit ñi dem jumaa ñu bari fa ñuy fa ñuy njaaloo te loolu xam nga ko ne xam na ko ngeen jàpp seex teg ko ñetti weer ci loolu ngeen gis kii ne leen man sàcckat laa te maa ngi foom ay groupe sàcckat ngeen ba ko muy dox di dem interview ci télé télé ay télé télé Sénégal yéen a féeg naa fekk te bon Macky sàll yow yàgg sa nguur gi Macky sàll ndeke Sénégal ni la yàqool yaa tax kay saawoo demee si YouTube sax nga gis but bu set nit ñaa ngi wax xibaar yi dakaar bës but bu set ñu ngi poos nit ñi dee nit ñi ñuy agressé ndekete nii la Sénégal yàqoo sàcc yaa ngi free bay dem interview ci télé di ñaawal nit ñi Macky Sall yow ndeke sa réew mi nii la yàqoo Macky Sall yow yaa gàcceel sénégalais yow yaa bañ sénégalais Macky Sall yow lu la sénégalais def moo ma jaaxal this is nothing to do with Sonko ñëppiti ngoloo li bu dul sonko sax bu dul kenn sax li nit wax ngeen ne sonko sonko ngay farle xanaa sonko nga man nekkuma si benn politique te duma mës a nekk si benn politique <clears throat> man xamu woon sax ne danaa tudd met Macky Sall wax ji laajal nit ñi doon seetaan vidéo bi di bu ma commencé ma doon ree because force vidéo bu ma ko dégloo ñeenti ñeenti vidéo la bi ma ko dégloo ma doon ree bi mhm. ko dafa jigéen bi mu ne su ma jëkkër nu ma ko xamee mooy dafa ñëwoon di sàcc suñ kër nit ñi dóor ko mu daw laxasuma noonu laa ko xamee ma ne what ma gis part one to to four ma ne xaaral ma ñëw su ma su may ñëwee su may def débat loof ma pilee loolu def ci comédie yi noonu nit ñi ree pour ma wax leen ne jigéen bi de moo dàq loof Ami jóg <clears throat> ndekete woo lii du lu fani atool atool jigéen ji wéru moo tax mu dem a góor gi that's fine boo Macky Sall yow sa réew mi nu mu yàqoo ak sa criminal yi niñ la yabee because xamoo xamoo xamoo sécurité ba sa criminal yi def la xaj yow Macky Sall yow war ngaa xaru soo Macky Sall yow yaa ngi xamee criminal yi la def xaj nii di daagu sa digg dëkk ba ngay ngay yónni ay nit ñuy fetel ay guneek fetel ay sonkook di sànni tear ay nit ci mbedd mi te nga jàkkaarloog ñii war a xeex ak ñoom war a jàkkaarloog ñoom Macky Sall yaay kaawat soo Macky Sall yow mënoo xam forme sa sa sécurité bi ñu jàkkaarloog sa criminel yi jàkkaarloog yow sa xar sa face bi di la mbéj di la saaga ndax kii de mu ne jabaram lu mu commencé wax ji mooy yow sa jabar lu mu def ba nob la moom it noonu la def ba nob jëkkëram mooy ne yow sa jabar nu la nobee yow criminel bi moom noonu la nobee jëkkëram moom moom jëkkëram criminel bi noonu lañ commencé wax ji te jëkkëram it wax na ne Macky Sall mu ngi liggéey man it maa ngi liggéey mooy ne Macky Sall ngay sàcc man it maa ngi sàcc Macky Sall yow sa sa sa jubadi gi kon sa mbon gee tax sàcc yëpp xam ak sa mu xamul sécurité bi moo sa sàcc yëpp yab la ba def la xañ yow yaa xam koo defanteel yaay kaawot Macky Sall yow li ma lay wooyee kaawot yëpp dëgg la li ma lay wax naan ngaa ragal Sonko ndeke yow su dul Sonko sax kaawot bu bu yambarta bon nga ndax yow ñii nga war a jàkkaarloo ñemewoo leen ngay dem di di di fetel ay moto sonkook fetel ay nit ñi tiya ti sànni nit ñi tiya gaas ay gune yu yuy lifin jàkkarloo sa criminal yi nga di leen seetaan ñuy rey sa nit ñi ba bu set di toog ci télé yi di ko wax di fecc di kaf di ree Macky Sall yaa xalku Macky Sall yaa sedd sa xoli bañ yaa ñeme xaq yaa bon yaay noonu sénégalais yi yaa bittre sénégalais yi Macky Sall yaa gàlli yaa ñàkk njëriñ yaa bon yow la sénégalais yi réccu luñ la jëlee kenn masta gis senegal gu mel ni ba dina ca sosoog tey <clears throat> sàcc yu taxaw ñu jox leen télé ñuy fecc di wëy di wax ne li ñuy nekk li ñuy def liggéey la bu leen kenn xooxee sàcc xam nga lu tax ñu taxaw di wax li fañ leen agressé gu doon jam leen ñoom mbala seen waajur ñu agressé woon ko jam ko mu doxee ca dee ba ba ñoom judduwuñ moo tax fañ defutoon loolu yaay kii moo tax kii juddu bay wax li bu doon yaayam bañ ko agressé jam ko ngir mobile wala stupid stuff yaayam dee ñu kon xam nga du juddu ba taltali defante <coughs> bu doon bàyyam fañ ko agressé jam ko mu dee xam nga du juddu bay taltali ñi ñoo bon ñi ñooy xaj ñi ñoo ñàkk jom ñi ñoo xiis dëgg dëgg ñii ñi ñooy noonu askan dëgg xaj yu ñàkk jom yu duga di nit yi ñii xamuñ deret ñii moom waxuma la ñàkk jom de waaye ñii xaj yuñ jaale yoo xam ne lañ hmm? ñii ngelaw li ñuy nokki sax moom lañ di saabul parce que ñuy bonuñ rek xem si de fa ñuy ndamoo seen bon gi di ko film di ko wax di xoogune yi ci seen mbon gi moo tax ñu dabul bon dégg nga parce que nit ku nekk xam na ne nit kenn matut bot soo bonee sax boog nga nëbb ko si yenn yi boog te xam ngor dafa bokkut si nga bon ba pare di promote sa mbon gi di ko film di ci xoogu ne ba di ci xoo nguur gi ne ne la nguur gi dimbali sa mbon gi Macky sàll ñi ñoo yab sa nguur gi nguur ak Sénégal gu nit yabee nii kenn mësu koo gis ba xadina sa soog tey wax leen mësu nguur ak Sénégal gu nit yabee nii comme ni nit ñi yabee sa nguur gi yow Macky Sall Macky Sall sa criminal yee ñoo la yab Macky Sall sa criminal yab nay askan wi Macky Sall sa askan yu néew nañ doole jaaxle nañ ndeysaan Macky Sall ku mën a nelaw ci réew mii léegi Macky Sall sénégalais du ñuy nelaw fa ñuy guddi ba bët set ndig fa ñuy bañ nelaw ñu yow agressé leen ci guddi gi dajji seen bunti billaahi wallaahi tallaahi sénégalais yu bëri du ñuy nelaw guddi Macky Sall dañ ko dee wax sama vidéo yi te dem naa senegal gis naa ko senegale <coughs> yu bari du ñuy nelaw guddi surtout ñu dëkk ci ay ay Touba ak ay dakaar ak si si capital yi ngir sàcc Gambie sax di seen kër yu bari du ñu yemee nelaw ñoom tam léegi ngir sàcc ne sàcc sàcc bu xëyee Sénégal fanaani Gambie xëyee Gambie fanaani Sénégal fa ñuy jaabante diggante bi rek moom ndeysaan ñun yàqu nañ suñ suñ suñ président yi suñ nguur yu bon yi yéen a gàddu suñ xàq suñ nguur yu bon yi yal nañu yàlla xàtteeg yéen yéen ngeen di ñëw di wax di neexal nit ñi di wax di wax seen wax yu neex ba nit ñi vóotal leen topp leen di leen gëm di leen xeexal ba ngeen dugg su ngeen duggee toog di lekk di naan rek fàtte ñu yaatu nag seen biir yi gën a funki rek ngeen di yaatu di xéegante jigéen ju ngeen gis xéeg ku ngeen gi jëndal ko oto ku ngeen gi jëndal ko kër ku ngeen gi jëndal ko or ku ngeen gis may ko ticket mu dem Dubai weekend seen jànq yi naaw di dem Dubai di ñëw seen jànq yi naaw di dem Dubai di ñëw di seetaan seen doomu réew mi xaalis bi ngeen war a jël foom seen sécurité bi foom seen police yi foom seen militaire yi train seen sécurité yi fay leen xaalis bu ko jar train leen monito leen jox leen jumtuwaay yu ko jar train leen fay leen xaalis bu ko jar ba gune yëpp mën a ñëw join du du ngeen leen di fay dara moo tax gune yi bugg ñoo join ñenn ñeen dafay nekk ñu bëri bugg ñoo join seen police yeeg seen armée bi ko du ngeen leen fay dara lu ngeen di fay bu ñuy fay bu ñuy jënd saako maalo fay waa sax duñ ko mën mu jeex ok ngeen fay leen du ko jar train leen jox leen jumtuwaay minister of defence muy Gambie ak senegal ngeen focus ci seen sécurité bi bàyyi seen caga geeg seen bugg jigéen geeg seen xalkare gi ngeen nee yéen ñëpp bu dee fukk ngeen juróom-ñeenti yëpp ci office yi jigéen ngeen fay nexee téléphone jigéen xool jigéen wax ak jigéen video call du ngeen di tal réew mi moo tax réew mu mel nii yéen a bugg jigéen yéen a dund yenn yéen a bon yéen a xalku yéen ay wees yéen yéen ay wees yéen nguuri Afrique yéen ay wees yéen a xalku tubaab yi dinañ ñu yàggaree Chinese yi yàgg ñooree danañ yàgg xalku xaw ñun ñooy ñun xadduna si juróom-ñaar ñun ñooy asaka xadduna doomu adama njaay yëpp just because of yéen suñ président yéen seen nguur yéen Afrique yéen suñ nguur yéen Afrique yéen ñu let down yow Macky Sall ko la fekk kii di wax mel ni sa réew dafa xam démocratique ne lii réew mu xam démocratique sax bu dee réewam nit la borom du ko nangu ok te yow sa réew mi bu xamoon démocratique sax boobu kii lu muy def nga koo war a arrêté ndeyam arrêté juróom-ñaari maamam ak groupam gi mu lay wax yépp nga laaj ko groupe ga ñaan la nga arrêté waxuma laa ba sa réew mi amul benn démocratique yow yow sa réew mi amul zéro démocratique fenkat nga sa démocratique yi fenkat lañ every day ngay arrêté nit ñi si loolu la neex ndax moo benn démocratique ngay fen Macky Sall yow sa démocratique bi fen la xam nga loolu sa followers yi sax xam nañ ko bu ñu waxee seen bàmmeel ok soo léegi how the hell kii di wax nag mais ni si si réew mu démocratie la ne di wax ne man maa dee rey nit ñi maa dee agressé nit ñi maa ngi am suma groupe bi gang gu may tëreen gune yi gune yi ñëw leen ku bugg a jooy ñëw leen gune yi yéen wér ngeen yéen lu ngeen di seetaan lii yéen Sénégal moo ma jaaxal yéen lii ngeen di seetaan ba fukki ci kanam ku ku génn ne yaa ngi dem marché sax ñu di la jam ci mbedd mi ne senegal fi ne nii de bu timis jotee ñëpp kenn ku génn timis sax yaa timis kenn digg bëccëg sax la ñuy agressé nii waxuma laa soo Sénégal ndeke nii la mel ngeen di ko seetaan lii tax kay sàcc ya fee del Gambie sàcc sénégalais xajatuñ Sénégal Macky Sall yaa bon Macky Sall yaa yàq Sénégal ba pare yàq gàmbi Macky Sall yal na la suñu xàq dal Macky Sall baneñ na yàlla sëpp nañ la yàlla ngaa ñëwoon def ni Sonko def nii di wax jiital sa biit bi jiital sa kanam gu néewi gi nit xéefar buñ jaale ok di wax di ñaq di yëppat yëppati ni xari yefal di wax di ñaq di ñaq nit ñi gëm la ok ngay wax di fen di wax di ñaq Macky Sall ok nit ñi gëm la ok ndekete woo ngaa mën a fen te tayal te bon te xamoo nooy liggéey mu xaw ma te bon te xaw ma nga you know you just you just you not doing so nga ñëw di wax di fen you know di yeppas yeppas di campagne nit ñi gëm la jël la comme nu Sonko di waxee nii rek nit gëm ko you know nga ñëw di seetaan nit ñi nii xaj yi génn di taxaw naan ñoo taymaan seet ci leen ñu ñoo nekk ñu ñi leen dee rey ñoo leen dee jàmpaaka di leen rey di jël seen mobile yeeg seen stupid stuff di leen rey si ngelaw waaw te loolu mooy suñu liggéey ñoo taymaan waaw ñoo tey réew mi amul loi maan ñoo tey lu ñu neex def te ñu ngi train gune yi pare leen Macky sàll yaa bon te mën a seetaan lu bon te naa fekk te soxot te bàjjo Macky Sall yow li ngay ares nit bu set ci lu ñàkk fayda yaay seetaan kii mu taxaw sa télé yi di la wax ni lii mooy liggéeyam because yow la yab moo tax sax jabaram di la tudd ci vidéo bi tudd sa jabar moom it mu di la tudd ñu ne yow criminal nga te sa jabar su la mënee nopp ci sa criminal googu kon nag moom it jabaram dana ko mën a nopp ci ci criminalam gi kii taxaw di la wax ne man maa ngi tireen sa ndaw yi pour ñu nekk ay criminal ni man Macky Sall mu taxaw di la ko wax live Macky nga tëdd di nelaw Macky Sall yaa doya yaa ñàkk njëriñ yaa xal ko yow la sa criminal yi yëpp Macky Sall yow sa sordaar googa nga xam na sa coggal ak sordaar ga nga xam ñuy dàqeegu ne ci mbedd mi doo leen xebal ci ñii Macky Sall yaa ak sa sordaar yi yéen a xal ko Macky Sall yéen yéen a ngi seetaan kii ak gurubam ngeen di dàqeante ay gune Macky Sall a xal ko te gàlli te bon taxame ji koy xaj yéen yàlla na leen xaqi askan wi dal nag ak nit ñi ñi di jàmpaakaaka di leen fitnaal aka di leen jooyloo yépp bu nit ñi liggéeyee bañ di leen waaj a jaale xaj yi taxaw naan lii suma liggéey mooy yow loo liggéey ma jël ko loolu mooy suma liggéey li ma jaaxal xaj bi ba ko jigéen ji di wax ne ko li ngay def du métier muy mer kii mooy yebaate tab bon man maa war na du jigéen ji rek konoon moom ko xoj ko xaj bi léegi bëggul ko wax ne ko moom xaj la moom xaj la mu naan la leneen lum do lum do kii mooy yebaate te xame ji xaj waaye Macky Sall la yeb tukkul nag Macky Sall ca te lijjanti ji xaj yi ba nga xamee soldaar yuy fetel ay gune ci mbedd mi sa nga war a jóg lijjanti ji xaj yi Macky Sall li ngay bon te tayal ta bon kenn respectatu la Macky Sall lii rek Sénégal fi ne nit buy dem di seeti mbokkam yi holiday sax fay tiit ku ñemee dem Sénégal fi ne nii yow mbër nga ku mën a dem ci li ñi taxaw di ñu di leen interview ñuy fecc di wéy ku fi wax naan yaa ngi jooje nit keeg wala li ngay wax Macky Sall waroo ko am boobu la la jamut paaka nag ba sa butit yi lang bi ko sa stupid mobile wala stupid stuff moo tax ngay taltali wax te feñ jamut sa yaay paaka wala sa jabar wala sa doom te sa bés a ngi ñëw danañ la ko defi boo oytu léegi ñu def la ko ma ñu def ko sa mbokk xamoo ne yow laay dimbale xam nga wéru fi mu ne nii nit ñun jaale ñi taxaw fi mu ne nii naan man waroo wax lii hëg nga bañ Macky Sall yaa ngi jooje nit ki xaj bii nga naan jooje fala la jamut ba sa butit yi lang xaj bi ñëw taxaw di wax nit ñi ne moom xaj la nga naan la kii yëpp nit ñi nga naan la xaj buñ jaale bi te li ma naqadi mooy lu tax jigéen ji wax ak moom ne na ko jigéen ji respect hey su ma yuur gi metti ni ma mënta jàppee kii xoj ko xoj Macky Sall kii ak Macky Sall fi mu ne nii maa ngi ñëw senegal hut kii ak Macky sàll xoj leen ñoom ñaar ok te suma leen di xoj ma koy film nit ñi gis ko am serious ok bi ko gi kii fa yab nit ñi te bon te do xaj ba nga xam ne tan naa fekk te mën a fen lu tax ma wax la ko mooy moom mu ne moom li muy def métier boobu fa ko buggu fa ci fier whatever the hell fier it ok like I'm proud of it ok waaye bi ko ko jigéen ji di wax fa mer si saa si nekkatul fier whatever the f fier is lu tax léegi bi ko jigéen ji di question ci mbiri sàcc bi muy def mu mer mu rijek sàcc bi buggut nanguwut ko daay di wax jigéen ji ne ko yaa ngi may jooj yaa ngi may lii nekkatut fier de effing fier qu'est-ce que la fier la tàbbal fen fier fen na pas de la fier la jigéen ji wax la ko la yow mer fenkat bu bon bu sàcc bu sulaar bu xaje bi nga doon waaye gi nga lu tax àdduna bon xam nga tax bon baaxul hmm? loo bon bon bon bon bon bon bon bon bon ah suñ la waxee ne ngaa bon rek nga mer seetlu woo loo xame-xame-xame jikko tey jaay maa tey maa tey suñ lay wax sa jikko ju bon ji nga mer sa yuur gi du ko nangu sa yuur gee koy rijat si saa si ci ngay xamee ne nag waroo def loolu doomu aadama njaay sa yuur gi ak sa deret ji dafa piyo dafa natural dafa organique di ko yàlla defaree dafa original yow yaa koy jéem a wecc rek def ko leneen lum duul moo tax duy nangu lu bon soo koy forcer pour mu def lu bon li sax bu ñu ko koy wax rek mu xam ne he lii waruñ koo def de he non rek mu commencé di mer seetlu ko rek yenn yi fa ñuy féeg nag mais ni loolu naqadewul leen di naan ah, waaye fekk ñu ngi dee de waaye yenn yi duñ fa ñuy fàtte féeg mi sax yenn yi fañ la koy won ci saa si la yow sax ngay jaaxle ne ah mu fa ne nga ne yow yaa tey léegi one minute yaa tey one minute nga mer bi ko teyoo ngaa bon te wik moo tax mënoo ko wecceeku ngaa bon te bon duhut pour ñëpp dugg ci lu bon du caaxaan duhut pour nit ku wik te jaale la boo duggee ci lu bon doo génn fekk deexoo ma la ñu tëj la doo génn baleen di dugg ci lu bon ngeen a wik ngeen a dund métit te wik dugg ci lu bon du pour nit ku wik doo ci génn nga cay can bañ robi la dosum yéen waaye xaj yi la ci askan wi di fitnaal askan wi yépp te pare pour yàq doomi nit ñi yàlla na leen xàqi nit ñi leen dal nguur gi ci boppam ñi leen di seetaan yàlla na leen xàqi nit ñi leen dal yéen ñëpp tout yéen ñiy sonnal askan wi yàlla na leen xàqi nit ñi leen dal li ngeen di dund métit te bon te mën a fen waaw man nag maa ngi dem su ma nijaay wàcc na liggéey tey rek laay dee maa ngi waj waji wax rek te maa ngi war a wax ak moom yow sa jigéen ji la bugg nii fay fen fa dund métit ak confis dof xamul luy lof danaa ñëw ci moom beneen yoon ak jigéen ñi mel ni moom ok jigéen ñi bugg góor gu bon soo waxee ñu naan loof nii mais ni ko dof fa ñuy fen fañ dund métit taxal ko ok te yenn yi dafa am lu ñuy topp si góor gi I don't know what but you know fañ dund métit taxal ko te bugguñ seen bopp danaa ñëw wax ci ak yéen ndaw yi ngeen oytu bu leen roy façon nit ñooñ wéruñ xam leen ki ngeen di bugg kan la mu géel du caaxaan kenn du ko jox xaj kii fi mu ne nii mën nañ koo tëj anytime mën naa dee anytime mën nañ koo dóor jigéen ji mu gaañu kii su fekkoon ne fa doon sàcc ba jigéen ji gis ko bugg ko das fine ñu ne mbugeel you know mën ngaa bëgg ko ne fine léegi lu tax mu continuer di sàcc benn xat ci gannaaw mu ngi continuer di sàcc ba tey continuer di ko ndamoo di wane ne fay mooy ne xaj la su la nit ki buggee fekk yaa ngi def jikkoy xaj hmm? yow su fekkee ngaa bugg nit ko baak ngay basa jikkoy xaj bi ko sof moom mbuggeel noonu la mbuggeel dafa ñëw pour soo bonee mu defar la muy góor walla jigéen mbuggeel dafa ñëw pour jikko ju bon ju mu fekk si yow mu dindi ko am set wecc su dee bugg nga borom su dee ñëw ñaar ñëpp buggante waaye su dee kenn ki moo la bugg te kenn ki buggut du wecci looy buggee ku la buggut wéroo kuy bugg ko buggut wérut ku mënta contrôle mu gélam xool kam koy jox xool ndax xóor na pour ma jox ki sama mbëggeel onat su xóorut mu jël mu ga téye ko xaar ku mënut loolu wérut dafa dund métit te buggut boppam ku buggut boppam dana yàgg jox mu ku mu ko warta jox boppam bi ko buggul boppam su xamee ne mbëggeel gi su ma ko joxee sax wóorul si man it's not safe like mun naa dee wala ma torox du ko withdraw fay continuer di ko joxe rek bi ko bëggul boppam su buggee boppam ba xam nag moom lu mu yelloo su xamee ne mbëggeel gi su ma ko joxee wóorul si man rek fa koy withdraw téye ko xaar ba ba gis koo xam ne fiil na ne xóor na pour ma joxe ko fii mbëggeel feeling rek la xamoo loolu nit ku xamul self discipline xamul self control munta contrôle boppam mun ta bugg boppam moo tax mun ta contrôle boppam nit soo buggee sa bopp xam sa valeur bopp rek si saa si da ngay xam self discipline boobu di oytu ay xarit oytu yenn jikko yi oytu yenn jëfin yi oytu oytu oytu oytu comme ni ngay gisee oto di ñëw nga taxaw di protéger sa bopp noonu ngay nekkee di protéger sa bopp ci lu ne mbugeel oo not mooy ku bugg boppam ku xam baluram bugg sa bopp du solu rek ñu ku xamut yow yaay kan because ngaa dund métit te dof na nga faju yi waaye lii du mbuggeel de lii is sickening effing nightmare effing ridiculous effing madness effing jonki slash criminal slash jabaate slash xaj slash confis slash dundu métit slash dof mooy lii lii is not love de si commencé maay mag naa ah ñii de seen love bi ngi ndeke ñii fañ feebar te xalku te caga dof mooy ñii not love de man nag maa ngi dem lii naqari na ma vidéo bi plaanu ma ko mu yàgg nii maa bëggoon a def benn waxtu rek lii naqari na ma te tiit si ñépp nañ jóg ku faral Macky Sall yi na ko jóg wax dëgg mu jóg arrêté si kii te wax si ñii te groupam gi nga wax ne moom lay train gi wax ne moom lay train pour ñu nekk ay sàcckat na leen arrêté ñii yëpp nañ senegal te bon waaye Macky Sall moo gën a bon te yëpp sénégalais ba tax criminel yi taxaw ne fàtt ci télé yi saan di ko wax sénégalais yi jaxaran man sénégalais yi xama nu ngeen di nelawee su ma dëkkoon Sénégal man Ami Jóob du ma nelaw mbala ma toxu Gàmbi wala ma toxu beneen dëkk sax ndax dëkk boo xam ne sàcc yi fa ñuy taxaw nit ñi leen interview ñu naan leen maa ngi tireen ay sàcc pour ñu ñëw rey leen loolu de man masuma koo gi bitim réew sax ko fi fi ma dëkk nii man Ami Jóob Scotland gi gisuma ko fi maa ngi dem lii jéggi na dayo tag ruslu te ku ci tiitut wéroo ku foog ne say doom wala say doom mbokk danañ mucc si lii wéroo ndax bu ko sa njaboot defut ñii suñ ko defee ba suñ suñ traîner ñuy traîner ñëpp sa njaboot yi danañ dee. am telling you this ñii ñu ñuy train mooy ñi ñëw di attaque yow ak sa njaboot yi ak man ak suma njaboot ñi ñuy attaque si ñooñu lañ ñii di train soo xamut lu tax may wax wéroo lii du caaxaan yàlla na ñu yàlla xàtteeg ñii ak Macky Sall mi seetaan ñii Adama borom nguuram gi yéen ñii seetaan criminel yéen Afrique yépp seen nguur yi yéen ñi dul mës a xam sécurité yu doy pour seen doom yi yàlla nañu yàlla xàtteeg yéen waaw man maa ngi dem yàlla nañu yàlla xàtteeg yéen ngeen di ñu seetaan ñu di ñu rey xamuñ xaalis butul bu ndaw bu ñu xam ngeen rey ñu nit ñu nekk bitim réew fii fa ñuy yónnee mobile mobile bu ndaw rek boo ko yónnee sa mbokk mën na cee dee bi ko sax mobile ñu jam ko kër gu nekk gu nit nekk bitim réew liggéey ci sedd bi tubaab yu réussi ci liggéey bay waaja dee tabax kër ñu ñëw dugg dajji bunt yi agressé nit ña digg guddi jam leen gaañ leen di wut stupid stuff xamul lu ñuy wut sax laa xamul ndax fañ bugg a jël armoire ba am fañ bugg a jël télé ba am di wut or wut stupid stuff dajji néegi nit dugg looy war a jël sa néeg ba xam naa ne xaalis kenn du ko denc si néeg ku wér tas néeg nit oto sax bu ko nit di dawal xuuru saak sax bu ko nit ngëbee xuurut mën naa dee effing mu bàyyi maan jar na bakkani nit non or wala stupide xaalis loolu jar na bakkani nit non bon ngeen te dund mitit te man a sàggane nit torop waaye yàlla nañu yàlla xàtteeg yéen ndax fi ne nii ñaan rek a ci des ku julli na ñaan yàlla xatte ñoom ñii yàlla xatte ñeeg suñ nguur yu bon yi ñuy sàggane te ngeen bàyyi di votal nguur yi muy nguuri Gambie ak Sénégal yëpp Afrique yëpp suñ bàyyi xoon di votal nguur gu bon lu ko doon borom borom borom président yi danañ danañ wecc nguur yi danañ wecc ku toog te xam ne su ma deful lu baax bu juróomi at yi jeexee ñëpp danañ ma jàmbu da borom dana def lu baax bàyyi foos waaye dañ xam ne ñun wéruñ bugguñ suñ bopp ñoom luñ mënti defit su wote jotee rek ñu jënd ñu dañu téye comme ay dof di jëw di ñu ree luñ def baax na bu wote jotee ñu jënd ñu fay mel ni kuy waaxu rek jënd sa téléphone jaay ma téléphone nga jaay ko fenes noonu la ñu yi gisee su wotee jotee ñu jënd ñu jënd nit ñi nekk ci plateforme yi wax jënd nit ñi ne ci kaw yëpp rek toog jàpp ko fa ne teg su ko defee ñooñu di wax per di leen di fen su watee jotee gune yu ndaw yi nit ñi nga xam ne wéruñ déglu ñooñ noonu su ko defee ñu watee leen kenn ku ci wér nag taxaw di wax surtout booy wax te doo saagandee kenn du la dégg kenn du la déglu surtout Gambie Sénégal moom kuy wax ci politique te doo saagandee di wax jos bi ko ngaa sa askan wi waaye nit nga jarul ngay saagandee duñ te booy saaga ndey sax ba tey duñ la faale what's the point man nag maa ngi dem ñaan rek a fi ku lii tiitalu wéroo na Sénégal yépp jóg wax ci lii yéen ñi bëgg Macky Sall jóg leen wax ko mu wax ci lii ku foog ne lii nga ciy mucc doo ci mucc te yéen ñiy seetaan lii te man see wax man cee def dara waxu leen ci defu leen ci dara ah seen doom yi ak seen mbokk yi duñ mucc si lii ndax xàqi askan we leen di dal ba du ngeen mucc si lii su ngeen foogee di ñuy askan wi rek la ñuy attaqué yéen yéen a ngi séef ngeen di caaxaan xamu leen xàq bàjjo bi xendu leen jàmm maa ngi dem bye guys beneen yoon incha allah